actu du jour dañu koy door rek ami internet yu 24 actu ak ngelaw bu metti bi nga xamante ne nii rek tey askanu Sénégal daal di nañu koy yeewoo mu di nag soppiteg jaww gi waaye nag météo daal di nay xamle ne boobu la ngelaw dina durer lu tolloog ñetti fan door tey aljuma war a jeex rek dimanche 7 février du yem rek ci ngelaw li ci jaww ji waaye tam dina amee ab yëngu-yëngu rek ci géej gi ci biir ngelaw loole tamit dina daal di juraale température bu wàcc lool ndax rek mën ñoo xaarandi ay taw rek ci yenn endroit yu nekkee fii ci biir réew mi bu dee tamit ci côté géej gi nañ xaarandi ay houle yu dangereuse yoo xamante dina amale ak ay vent yu fort a ci côté géej gi ndiki tey rek ci aljuma ji bu 6 heures jotee ba dimanche rek gi mu war a jeex bu 23 heures jotee ba tax rek météo tamit di alerté ñi nga xamante ni ñoo di pêcheurs yi agriculteurs yi éleveurs yi ak usagers de la route yi ñi nga xamante ni dañuy dox ci mbedd yi gi ñu jël rek seen ngir mën a ñetti yi nga xamante ne ni rek dina jur ab yëngu-yëngu rek ci côté jaww jeeg ci côté géej gi ñu àddu ci leneen ki nga xamante ni rek moo di leaderu Pastef bile di Ousmane Sonko ginnaaw rek ba ñu ko daal di déposé rek ab plainte ngir viol ak menace de mort boo xamante ni rek ma nga ca section de recherche bu Colobane benn masseuse nag boo xamante ni tur ba dañu ko abrégé asar rek lañ ci mën a jàpp mu sukkandikoo ci journal bi Les Échos mu ñu xamal yooyu les xibaar daal di janook enquêteurs yi xamal leneen ne moom dafa amee kersa ginaaw rek bi muy gis yi nga xamante ni moo di ay viol yu répété jëm ci moom ndaxte kii di Ousmane Sonko buñ ko defalee lii di massage bu paree rek dafay exiger ay faveur rek sexuelle moo tax rek moom xale bi daal di def boobule plainte ay atam nag mi ngi toll ci ñaar fukki at waaye rek ci loolee leaderu Pastef bile dafa daal di xamle ne boobule plainte ñu nekk di wax rek jamono ji ci réseaux yi moom gisu ko benn jàpp ne moom Ousmane Sonko dafa daal di ignorer l'existence su euh, plainte euh, boobule. ñu àddu ci leneen Expresso risque de disparaître noonee la ko journal bi daal di bindee directeur général de l'agence de régulation des télécommunications et des postes di ARTP Abdoulaye nag moo daal di mise en demeure Expresso ngir euh, ginnaaw rek bi nga xamante ne nii Expresso investiru benn yoon ngir améliorer clientam yi rek seen réseau connexion boobule di 4 buñ sukkandikoo ci journal bi di libération moom Expresso dafa daal di war a jox lu tolloog 7 euh, milliards rek kuréel gii di ARTP ba tax rek ñàkk joxe googee nga xamante ne nii Expresso defu ko buñ moytuwul rek dinañ disparaître rek fii ci euh, Sénégal ñu daal di wéyandi fan yi ñu génn rek gis nañ ne taalibe yi rek nekkoon nañ ñu doon waxtaane rek ci réseaux sociaux yi mooy ñi nga xamante ni dañuy nekk ci mbedd yi rek di yalwaan ba tax rek ki nga xamante ni moo di imam Kanté daal na ci yëkkati rek ay kàddu ngir xamle ne loolee rek nekkul benn yoon lu dul ak rek ci biir réew mi ndax ñi nga xamante ni dañuy jël xale yi di leen yóbbu ci mbedd yi ñuy yalwaan ba yenn heure yi defuñu ko ngir dara dañu leen di utiliser rek pour am li nga xamante ni rek moo di xaalis imam Kanté nag moo daal di yëkkati yooyu lekk kàddu ginnaaw rek ci ab émission rek bu mu seqoon nag waa Dakar Buzz ñu addu ci leneen ki nga xamante ni moo di Coumba Gawlo Seck nekk artiste musicienne bu kenn dootul présenté ci fii ci réew mi ndiki démb rek ci alxames ji dafa daal di génn rek ngir xamle ne dafay daal di bàyyi li nga xamante ni moo di euh, musique ginaaw rek ba mu amee rek ay tolof tolof rek ci baatam bi mu di ak wéradi goo xamante ni daf koo daal di euh, dàpp te moytu ko rek muy continuer li nga xamante ni rek moo di euh, way yi ba tax rek mu daal di génn rek daal di def ab vidéo ngir di alerter ñi nga xamante ni ñoo di ay fansam ngir xamal leen ne dootul mën a teg continuer ndaxte dafa am ay jafe-jafe rek euh, ci baatam bi ginnaaw rek ba nga xamante ni moom génn na ngir xamle li ni mel waaye itam daal di nay nag sensibiliser waar rek ñi nga xamante moo di askan bi ñu gën a sàmmonteeg mesure barrières yi ngir ñu mën a xeex rek mbas mi di euh, Covid 19 ci noonu rek la chanteuse bi rek di remercier ki nga xamante ni moo di yaayam di Macky Sall ñu di ko ñaanal rek moom gaaw la Seck yàlla suñu borom daal di koy may wér ba mën a daal di dellu si war rek ci li nga xamante ni rek moo di liggéeyam bi di musique ñu daal di wax ci beneen vidéo boo xamante ni rek mi ngi doon def buzz gépp koo xamante ni rek da nga koo tegoon bët sa yaram daal di nay daw mu di feebar bi dal Fa Mbaye moom nga xamante ne nii rek dañ ko daal di laajoon lu tolloog 15 millions ngir mu daal di mën a faju ginnaaw rek ba mu yoree pois bu bëree bëri toll ci 300 kilogrammes ba démb rek ki nga xamante ni rek moo di Wally Seck ñu daal ñuy xamal ne daal na koy jël en charge rek ngir daal di faj xale bu jigéen boobule mu nekk nag benn geste bu noble boo xamante ne ñu ngi koy waxtaane bu baax a baax jamono ji rek ci réseaux sociaux yi moom Wally Seck rek di faral di dox ci li nga xamante ni moo di euh, social mu daal di koy defar rek tey jëm rek ci Fambaye moomee ñu di ko ñaanal rek suñu borom mu daal di may rek xale bu jigéen bi rek tan ba mën a delluwaat rek ci ay activité am dañu koy daal di jeexaleeg wàccug liggéey Serigne si Sy Djamil di doom ci Serigne Mansour Sy borom daara ji daal di nag génn àddina ni ki démb rekk ci alxames ji ñi di ko ñaanal suñu borom oyofal suuf ci kawam daal di koy xaare rek ci aljana yi gën a kawe li rekk moo fi gënoon a fës ami internet yi di dajalay doon ba ëllëg ak jàmm.